mbir mu doy waar moo xew fële sa Sandaga fi nga xamante ni foofee la gas bi doon tàkkee ay bis yu ñu weesu benn gendarme bu ñu fa yóbbu woon ngir mu garder moo daanu si pax mu yaatu mun fa gasoon itteel ndox mi ni fayee lakk gu mel naka noonu ñu ngi woon si liggéey bi di jéem a fay gas boobu nga xamante ni ma nga ca jël ak pël si la gendarme bi ñàkk bakkanam pour sukkandikoo si ay information boobee gendarme dafa daanu si biir bassin de rétention bi xóot na nag si lu tolloog ñetti genn wàll si la lab bi sapeur pompier ñëwee doon ko seet ñi ngi mujj gis jëmm ju dundul naka noonee lañ ko jël yóbbu ko hôpital régional bu Thiès jëye ji nag mi ngi amee si Ngadiaga si village bu jël Jëllëg Pël fi nga xamante ni foofee la mande gaz yi nekkoon doon takk jamono yëpp di fàttali si boobee barab la beneen tamit waaye bu fa doon liggéey si entreprise bi di Forteza Michael Gouning ñàkk bakkanam si explosion bu amoon jamono yole weesu ginnaaw bi mu si jëlee ay gaañu gaañu